ak Serigne Mor Serigne Omar Serigne moom maam Mor Thioun maam Omar Thioun ak sëriñ Mor xalifab Serigne Thiar ak mboolem njabootu Cheikh Mor Thioun gi yëpp seen kàddu la sëñ maam Mor jox ma ndigal ma naa wax mbooloo mi sant leen gërëm leen ñaanal leen mooy ak di ko ñaanal mooy Serigne Mountakha Bachir yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko ndax kenn ko ne xam na digganteem ak kër gi kenn ku ne xam na ni kër gi mel ci toolub Serigne Touba mu di ko fàttaliku bëri bis bu ne ba démb rek moo mu jiitu takkusaan yebal fi Serigne Abibu mu ànd ak waa Touba ci kanam yëpp wax na wax jure ji mu fi wax Serigne Modou Mahfouz ñëw fi wax digganteem ak kër gi ak digganteem ak soxna May ak taxawaay bi nga xamee ne waa kër Cheikh Mouhamed Thioune ñu ngi koy taxawu ci biir kër soxna May. bu loolu jàllee Serigne Cheikh Mbacke Madina mi nga xam ne mooy kilifa kër gi ndax bu naan fii Serigne Mbacke Madina ko moom ndax Thioune dafa am ñaari pàcc bi ci Lansar da cee géeju ba jeex takk waaye nag dafa géeju ci Mbacke ba jeex tàkk. kon nag cuune paak ñaari boor la ba ñett loolu moom suñ tuwaa ñu ko jagleel ndax boo nee sóori leen abadan soo gëstoo cuune danga ko gis ndax loo xamee nii Sëriñ tubaa ci kàddoom walla ci kàddoom la wax ne diw saadex loolu yëmbul te wax na ko Cheikh Mor ñetti yoon te ñaari yëpp yi ma ci xam daanaka ci Cheikh ma saar la jóge ndax benn bi bi mu waxee Sëriñ tubaa ba mu jaayanteeg moom ba noppi gis la nag sëriñ bi xam ne sëriñ bi ëpp na sëriñ ku ko jàpp sëriñ dafa xamul mu ne ko ëpp nga ma sëriñ damaa bëgg nga wut loo bool jaa doxale sama diggante yow mooy dem ci moom muy ñëw ci yow mu ne ko nan nga def ak Ibrahima Sarr Njaañ mun ne ko suñ buddu kër yee jëlloo mu ne ko boole naa ak moom mu ne ko boo ma gisatee moo la wa moo ma la won nee na ba mu nee wëriñ dem sëñ waa dafa xool xool bi ak làmmiñ bi ak jëf ji nekk benn mun a sadiq Omar Thioune mu sadiq loolu mooy sadiq gu njëkk gi loolu mooy nit li muy wax ci xolam dafa war a nekk ci xelam war a nekk ci làmmiñam li muy wax ci làmmiñam dafa war a nekk ci xolam beneen biir mooy aynu rahmati gii biñ ko Serigne Touba joxee Cheikh Ibrahima Sarr mu di ko liggéey lii may wax ñeme naa ko wax fii ma koy wax ci cuune laa koy waxee waa lan Sarr a ngi toog ngi toog waaye booy wax dëgg wax da koy ñeme ci toolu Cheikh Ibrahima jox ko ndigal ba mag ngay dugg di gas Cheikh Mor Thioune toog fa mu toog ne ku toog kuy dugg na nga dugg man bu mu duggee bala maa génn bala maa génn dinaa génn ndox ndox ma ci génn ci ay noo xamante gi Cheikh Ibrahima ci Cheikh Mor mu jël ko jox ko Cheikh Ibrahima Sarr mu yóbbul ko ci Serigne Touba mu ne ko sa waa jàpp ba loolu nag yombul asadiq boo nee yonente sallallahu alayhi wa la cay teg mooy Aboubacar Sadiq boo nee Serigne la mooy Mouride Sadiq kon loolu buñ ko amee war nañoo sant yàlla bu baax waaye nag li sëñ Habib wax léegi nee na mbir lum rëy rëy rëy saa maama jëf saa maama def waaye loo def yow ak loo wax bara jara bàyyi xel waaye nag saa maama jëf nangam rek nga bëgg taxaw ci loolu taasu ca barke ba loolu day indi tardement lay indi nit ki day sabablu fan mag ñi tegoon seen tànk jëfaat seen tànk loolu nag alhamdulilah rabbil alamin bi ñu gisee mag ñi ànd ak ñun ci loolu teg seen tànk te teggiwuñ ko ñoo moon ñoonu euh, ñoonu tànkatal ci loolu ban ban toq ci ba nga xam ne tey yi amuñu lu ñuy def loolu kon alhamdulilah rabbil alamin kon nag kàddu yi moom cant la ak ngërëm ak sant waa dëkk bi nag ndax bi mbir mi amee ba léegi ñaari at a ngi ni amul waaye ñu yàkkamti ko woon lool lii moom dañ ne dañuy génne rek waxtaan nit ñi mën a waxtaan ndax temps bi dafa xat waaye bu ndogoo ba noppi xaadim ngay day day jàng ba minuit wala une heure de matin ndax bu bés bi ki ko tuddee ak ki ko moom mbiram nekkul ci tàkkusaan donc dafa yaatu muy maam Baye Serigne Thioune moo tax ñi fi teew ñëpp teew fi sëñ Laaj Baara ñëw teewal fi Serigne Baara ndax Serigne Baara moom bis bi daa dugg ci biir Serigne Modou Thioune moom Serigne Naar xam na woon daa jël lépp Serigne Naar dugal ko ci bis bi ànd koog ñun di ci liggéey di ci def la mu war a def ci xelal ànd ko njabootu Serigne Naar ñu ko ciy sant di ko ci gërëm ñu bokk na ci ay kàddoom yu wax. nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant nag mboolem jigéen ñi waa kër gi nga xamee ne moom lañ seqal dox bii ñëpp génn nañ seen i kër bàyyi ko ñun ngir ñu dalal ay gan xale yi organisation bi maanaam kenn ku ne def nga ci engagement boo xam ne yow da ngay am kersa sax lan moo tax ñu daw gi ñu daw waaye lépp bëgg lu baax rek am na ci koo xam ne ni démb ba ma xëy Modou Gueye da ne ñun màggal gi suñ feet la bi ñuy xale moom lañ jàppoon feet cant gi ñëw na moo tax ma ne bu na ni bàyyi xel gone yi di leen berneel te di leen teg yow ba leen di tàq ndax koo xam ne nii mooy doon ma ëllëg ndax lépp ci màggal gi tey ñoo ñu doon gone démb ñoo ko def tey mooy ñi nekk Amérique ñi nekk senegal ñi nekk Espagne ndax ay sët dong ñoo ko fi def lu fiy def loolu war na ne mag ñi la bëggoon xam nañ ko kon sëñ bi la nga bëggoon dénk ko ñu foofu rek laa ci xam ne temps bi xat na li bëgg a wax mun ñu yaa ngi nii bu ñuy wax mooy wax ci turu sëriñ bi ndax bu fi waa kër sëriñ Tuubaa nekkee ñëpp dañuy jaar jël seen kàddu jox leen ko ndax moo fi teewal sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Mbacke Madina sëriñ Xalil Sarr mi ngi nii ndax sëriñ Cheikh Moutou ba mu a àdduna bàyyi sëriñ Sarr ne ko sëriñ Tuubaa boole na ko yóbbu sa maam bàyyi moo kon moom bu toogee toog na ci këram kon nag ci gàttal loolu laay wax xam naa jot gi waaye moom dana jël tànkam lettre bi dem ba àgg barki démb dama ne ko mu may tooñ ne ma président bind na noo sama lettre ma ne ko dee si président sama lettre lu ci bind noo mu ngi gis sëriñ mbay mbeng daan wuy ndax na ma demee moom a <laughs> te noonu la demee kon nag loolu dafa doon tooñ rek di ma sonde ba xam fu may toll kon bu ànd ak tey jii nag suñu doom Gallo dama naan suñu doom la man loolu laa koy jàppe ndax doomu Mbàkke la ndax baayam suñu mag la nekkoon ci am cër ci moom kon bu yàlla dogalee tey jii mu doon maire bi yore dëkk bi dañu ñaan yàlla defal ko ci barke defal ko ci ndam ndax ñun kat Mbàkke soxla woon nañ benn interlocuteur interlocuteur boo xamee nii soxla Mbàkke dana tàbbi ci noppam mu tàbbi ci noppal président président réglé problème ndax Mbàkke nag wax dëgg yàlla yàgg na nguur gi nag amaguñ ci dara tali bi jooy naa ko ba tàyyi ba tey jii réglé nañ ko waaye yeneen i njëriñ yëpp nag monsieur le maire teg ko solo am yaakaar ci yow danañ la ñaanal ci bis bii ndax bis bi bisub alxuraan la bisub tasaay bi bisu nitu yàlla la kon loo fi bëgg boo ko ñaanee da ko am yaag si équipe municipale yëpp muy adjoint maire Mor Am Gueye jërul may limaan ndax lim ngeen ma nopp ndax ni temps bi demee tax waaye kenn ku ne xool naa le sama xol ni yaa ngi sama biir xol ak sama biir xel bàyyiwuma kenn su ma tuddee maire rek doy na ma tudd ñëpp kon maire ñi ngi lay sant ñi ngi lay yaakaar naa ndax sëñ Mamoun ma nga nee toog jóge Daaru Salaam sëñ Mamoun si lam jàng ci kaamil alxuraan nag xajul ci dara rawatina nag mu nekk ci daara ji wala du ànd ak ñun ci biir solo mën bi bariwul li mu koy def kon nag tey jii bis bi amaanam ci beneen tanoo kon nag am ah, daayira bi laal mi ne boo xoolee kilifa yi di def waa ko Cheikh nee Cheikh Omar tuuti ne Cheikh Omar ñoo bokk lépp kilifa bi moo njëkk a ci ngay ñëw ànd ak ñu ci bis na ko waxoon léegi di leen ñaanal kilifa yi ci jóge yàlla doolu leen ay leer te te dajeeg ngërëmu suñu borom waaye suñu xalifa bi bu ma doon lim dama fi laay fanaan waaye bu ma limee kenn ngi nii kon ñëpp day mel ne lim naa leen kon daal ci gàttal maa ngi bàcc samay kàddu fii ndax temps